final nag il faut am kenn ku gagné te jour final ba sénégalais yëpp gis nañ ni gars yi ay jàmbaar lañu joxe nañ ba jeex tàkk yàlla nag mooy maye ndam te yàlla yàlla joxu leen ndam li donc ñun nit ñu gëm leen gëm yàlla la dañuy gëm yàlla rek nangu ndogal. d'accord mais match démb bi nan nga ko mën a décortiquer. match bi Sénégal a dominé football football bu baax a baax football bëgg a dugal bëgg a gagné bu xooloon booy xam ne ñoom dañoo ñëwoon pour jël coupe bi mais yàlla dogal lii muy ku gis bii bi xam ni du biiwu naar. biiwu lan la. du biiwu naar de. biiwu lan la biiwu wax nag borom xel a koy dégg. bii du biiwu naar. biiw Sénégal la. Sénégal ñun nañ bëggante jàppante di waxante lu baax di defante lu baax équipe nationale bi du équipe bu Macky Sall du équipe bu Abdou Diouf. du équipe bu Abdoulaye Wade. du équipe bu Ndoye Bane du équipe bu kenn équipe bu Sénégal la man Sénégal laay supporté pas ay équipe nationale Sénégalais la su dee dem jongante ji ñoom lay àndal ñu gagné ak ñu bañ a gagné ñoom lay àndal nañ bëggante jàppalante boole xol yi te ñi ci YouTube bi di wax ñu dimbali ñu fàtt nañ ñu leer na ma ni ñooñu di wax ci YouTube bi ñoo dugal xamuñu dara suñu xamoon dara Sénégal du dem final ñii nekk ci dëkk bi di yàqal équipe nationale suñu xamoon dara Sénégal du dem final mënuñu ci dara te li ma leen wax nañ dem ci échéance yi. ci mais est-ce que nekkul tamit dañoo dimbali seen i victoire. dañoo lan mën na ñu gisoon ndam li. yàlla moo ñu mayul ndam yàlla mooy joxe ndam te ñu ndam. waaye bii bi du biiw du naar. biiw sénégalais bii bi du biiw naar. ñàkk sens la wala lan la loo jàpp. yaakaar du yaakaaru tas yàlla mooy maye ndam rek. sunu borom moo ñu mayul ndam li. li naan euh, gars yi ay jàmbaar lañ 24 équipes nga dem final. lool doo yàqu nga dem final doxal bu baax. entraîneur bi doxal. joueur yi doxal encadrement bi doxal ñëpp doxal. Sénégal ñëpp bokk ànd nit bu baax ñëpp. nekk benn. nekk benn. xaw ma nag nga bëgg leneen. c'est li naan yaa ma gën a dégg wolof. bukki bi ci biir gétt gi. maanaam euh, liy ram ci ci biir ñag bi la nekk. dama ne bukki bi ci biir gétt gi. waaw. di muuroo deru deru béy. deru béy mooy lekk bay voilà loolu mooy senegal kon li ñu yàqal nga fii ci biir. mi ngi fii ci dëkk bi. Hmm. da ngay gis gars yi ñi yàqal équipe bi. Hmm. dañuy sol maillot jënd maillot. jënd maillot. su Sénégal gañee ñuy commentaire di wax di gën ci Facebook bi di wax di def ay vidéo di wax fekk duñu dara suñu xamoon dara. Hmm. senegal du dem final. bilaay final bi bett na leen. bett na leen trop Sénégal dañ doon wax naan senegal du génn pulam mu génn pulam du dóor Ouganda mu dóor Ouganda du dóor Bénin mu dóor Bénin du door Tunisie mu dóor Tunisie te xool coupe bi suñu coupe la woon. suñu coupe la woon bii bii du bii wu naar. non bii bii du bii naar yi sax gëm bëtt na la. dama ne du bii wu naar. et puis ñun yi. nañ gën a am fulla am fayda am personnalité. ci kaw. ci kaw parce que démb ku gis match xam ne ak càcca ci. ak arbitre yi ñun ñuy def. voilà ak càcca ngi ci ak càcca ngi ci voilà na gars baax am nañu équipe. lu tuut rek suñ ko réglé affaire bi dina ñëw te dina 2021 2022 soreetul dama ni dañuy demaat coupe d'Afrique demaat coupe du monde jël ko te bi dafa manqué woon ngemb ngemb am na ginnaaw waaw gis nañ ni am na ngemb te ñun nii man de feeg maa ngi noyyi mm-hmm. feeg ñu ngi noyyi feeg ñoo ngi noyyi ngi ci man maa ngi ci biir man man moom ci lépp maa ngi ci biir non yëg naa sa liggéey wax dëgg yàlla maa ngi ci biir équipe nationale bi man Sénégal damaa jaral sama bakkan man soldat laa woon moo tax may comp yenn comportement yi su ma ko amee nit ñi duñ comprendre man soldat laa woon damaa xam lan mooy drapeau national damaa xam lan mooy réew waaw mais réew mi dafa am ñoo xam ne dañuy nekk fii réew mi di leen dundal ba pare ñu bëgg di dundee réew mi am réew kenn du ko dundee da koy dundal mais ñooy ñaan loolu ñooy ñaan ñoon luñ ci gagné luñ ci gagné dara i ñaan rek ak soxor ah mais ñoo ko xam ñii place Aliou Cissé lañ bëgg ñii place Matar Ba lañ bëgg ñee président njiitu réew mi leen neexul. ñii woowuñu seen jour. waaw loolu rek. du politique. du politique. est-ce que fédération bi xoolaat xoolaat ci dara. ñun Sénégalais yi fii ak bëggante wuñu. Ah. duñu gagné dara. waaw fii ak dinañu soxor ci suñu xol yi duñu gagné dara.